organisation bi nga xamante ni Laye Diagne def na ko muy la reine de l'or maman maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay sant di leen gërëm vraiment. maa ngi sant alhamdulilah. sant sant lu bëri macha allah. non damay jéem rek xam nga may accompagne xale yi. li nga ñëw euh, jàppale ñoom waaw noonu la Linguère waaw sama doom la. waaw ah. boo gisee bi nga xam ne Laye Diagne ko. mais Laye dafa bëgg sa réew mooy li liggéey ci sa réew la jógee. bu ñu nee ceebu jën ñoo ko moom su ko defee man fexe ka ba UNESCO jël ko ba nga xam ne yëf yi génn na te laay moo tax bëgg réewam ma tax te yàlla may ko ci ndam nag te nag day gën a avancé ndax laay day dem du taxaw. lii dafa am leneen loo xam ne mën na ko dolliwaat ci culture. ah mais bien sûr lu nekk mais Sénégal dafa ji par exemple ku dugg ngaay bi rek ngaay mexe boo demee foo mën dem.

xam nga li gën a neex mooy nit def dara mu di la neex man li may def daf ko neex mu ciy gis boppam ma gis ko moom it di gis sama bopp ci moom loolu la wax di waaw waaw loolu la loolu la bëgg-bëgg la waaw bëgg-bëgg la bi dañ lay dugal ci série boobu di Bété Bété lan moo nekkoon sa réaction quand même parce que euh, betteel la Sénégalais gisaat la jàppoon nañ ne tey yaa ngi ci leneen wér nga say gàndaay toog nga bàyyi nga li nga xam ne dama toog ñu ma

bi ñu tourné daf ma poñe ba pare jël di jooy maam baal ma maam baal ma ko baalu ma la maam baal ma c'est ma fille ça voilà. après loolu bii dafa def la ñëw téye la jooy. Apre bineceğe bakıyor. Lafa diyorum ben ben ben. Ben kalma la bal bal ma yaa ma pañe. ndeysaan waaw elle est adorable Dieynaba ba boo xamante ni kontaan nga pour bokk ci quand même ñu doon yeete ci wàllum li nga xamante ni moom moo di deret ki géwal la ki géer la nga ñëw bokkaat ci am loo xam ne yow it da nga ko dund doon ko ndëpp sumb waaw euh, non sumbulul dunduñu pour loolu affaire opération la woon mooy ko ren te ki ko may bala mañ sa te bëgguñu bala mañ من انا لو خلينا بلا ما نسكن قالوا لي قالوا لي كان قالوا لي بوت عمو دابا عمو جدا موت خارب واو واو واو واو موت خارب واو بلا ما نسكت مال بو عمي خدمو مال سينا بو عم دغيا دابا فقط دنيو باخ دنيا يوق دنيا دول الله الله سيزون 2 بيني كوخا وي سا دان 2 موا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تاي بي فمو دي خي سنغالي دنج ني دو يولو ني سي كامم تاي لو فيت كو فيريتي ييب فيني فو وا بو يو فيني فو ديسنا ah non non on met le verbe à l'infinitif et on laisse le temps agir vous verrez la suite après mais du wax d'accord mais gis ça ci ah mais oui ah mais oui non ku bëgg li ñuy def lañu aussi macha li waroon sa diggante ak ñoom ci salaire li nga waxante da ngay paré quitté génn dugg sa portable dugg la dara kenn dara.

un grand comédien macha allah yal na ko yàlla defal cat. ku bëgg li muy def la. waaw xaar saison 2 bi dans deux mois nga wax. incha allah kon yaakaar naa ni nouvelle la bu neex boo xam ne sénégalais aussi euh, ñi ngi koy xaar mais maman euh, du ma la bàyyi te du ma la laaj ci actualité parce que gis nañu kenn koo xam ne doom la ci yow quand même Aziz Dabala ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko moom ak Waly euh, ñu fat ko te ci yéen la bokkoon parce que comédien la. ku xam boppam ku bëggoon li mu doon def jàll ko yàlla yërëm. rien à dire lu yalla yal na ko yàlla vraiment. xamone nga ko. ba xamna ko ni comme ni ko nit ñi xamé comme dans yi ni rek waaw. Eh, dañu ñaan rek yalla nako yalla yàlla fa mu jëm dal yalla na doon nopp laayam. d'accord waaw du ñaan c'est la première fois fi Sénégal ñu wax ni artiste ku siiw. Euh, def nañu ko li ni mel quand même parce que suñu ko dégg ñun fi ci Sénégal ñu ne fat nañu ben artiste tay mu jëkke ci mom ñi ñaan mu jëm fi quand même. est-ce ah. que euh, amul lenn lo xamé ne def ah mais dafa métti de ray moo métti et doomu aadama dafa diis doomu aadama moo diis ku yor bakkan vraiment ray moo métti waaw ray moo métti Aziz xalaatul woon loolu ci àddinaam wax dëgg yàlla moom kay nee naa fa mu dee yàlla doon la fa rek waaw waaw yow rek moo mag moo mag waali kay te ay xale ndaw lañu vraiment yàlla leen yàlla yërëm tey du ñu toog ak yow ba jub duñ la laaj ndax mag nga euh, ñaan ñu doon ànd tay nekk ay xarit defante lu ne ñu xëy ñu faat kenn ki ñu ne yow suspect nga est-ce que tey li mu du tax ñu ñu ragal xarit ah non fa daan taa ba léegi boo demee fekk fa tepp teppal bi fa daan taa man na bu xel ndax monsieur la connaît pas vraiment xaw ma ko te xaw ma woon tamit seen xarit yoo xam nga foofu doo fi mën wax dara dafa mën wax dara waaye rek yal na yàlla leeral yëpp barke yonent bi yal na yàlla leeral yëpp barke sa yàlla mu ca bokk waaw lan ngay wax ñi nga ne dañu nekk ci réseaux sociaux yi maanaam di ko jiiñ borom ñaari tur na ma yàlla baal faat la ba pare yàq ah ah kooku seen diggante seen borom la waaw seen borom la ndax kenn doxul ba teg ci doxul ba gis ka wax dëgg yàlla te ñëpp ñu koy doog a waaw léegi daal moom nañu bàyyi waaw yëpp ci got daal nañu ko bàyyi ak yàlla rek waaw nañu ko bàyyi ak yàlla. ñu ngi lay sant bu baax di la jaajëfal. amul problème mu soobee yàlla merci beaucoup merci.